waa ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di jiital ci nuyoo bi Serigne Saliou Ndiaye bi nga xam ne moom lañ nekk si ëttam tey euh, si kàddu gi Maka Thiam la nekk si bassin de rétention bi nekkee Kër Niang euh, tey nag ñu dajale mu dajale woon ñu fi ngir benn ndimbal boo xam ne dafa jëm ci askan wi mu jóge ci benn taalibe boo xam ne ni jëf lu baax rek moom moo ko ñor muy le PDG Doro Gueye te lii euh, ku miin Saliou Ndiaye wala ku miin Maka Thiam xam ne ne at mu jot. su askan wi nekkee ci jafe-jafe wala ñu nekk si màggal wala dara dina yëkkati alalam mu néew mu bari mu def ko ci askan wi kon kooku ñu ngi koy ñaanal ci màggal sëñ Tuubaa gi nga xam ne moom lañ jëm lépp loo xam ne mi ngi koy yóotu wala mu ngi si dugg yàlla yombalal ko ci barke sëñ Tuubaa parce que nit ñi booy jëf lu baax ci nit ñi rek nga mën a jëf te am na ci ñoo xam ne nii ceeb bii nga xam ne moom lay yëkkati joxe ko muy lu bari loo xam ne nii daf ko jëmale ci askan wi am na ci ñoo xam ne nii loolu lu leen dimbali la lu leen soxal la lu leen amal njariñ la si jamono bii nga xam ne moom lañ toll ci màggal ñoo ngi koy tàllal loxo nag di ko gën a ñaanal lépp loo xam ne lu mu mën ren la mu mën lu ko raw déwén parce que bu fekkee Maka Thiam mel na nii tey ndax bu fekkee askan dañ ko sollicité ci dara si bonne volonté yi lay jëm te sama xel ci ki bi njëkk a jëm mooy président Doro Gueye su ma ko woowee jotuma ko su ma woowee Saliou Ndiaye lépp loo xam ne lu ma ko wax la dina àgg ba si moom kon sëñ Saliou bala ñuy sant kenn dañ lay njëkk a sant yow mi nga xam ne yow yaay dox suñu diggante ak euh, le PDG Doro Gueye donc ñoo lay remercier yow it di la ñaanal sa taxawaay bi yàlla na gën a yàgg di la di la di di la gën a tàllal suñu loxo ñun say doom lañ say rakk lañ ñoo ngi fi ñun moom ay jumtukaay sëriñ bi lañ lépp loo xam ne lu sëriñ bi soxla la ñoo ngi ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ko tàllal loxo tamit waa sama relation ak Doro Gueye relation bu yàgg la ndax yaakaar naa ren mooy mooy mooy quatrième année bi nga xam ne ni président Doro Gaye mi ngi taxaw di ñu jàppale te si inondation yi la ñu fekkoon ñu ci dund ay jafe-jafe yu metti muy jënd ay moto pompe ay carburant di ñu fa fekk di ñu ci dimbali Doro Gaye bi mu ñuy fekk ci ndox mi kenn fekk ñu foon dañu doon seexlu xay na li may wax ñi nga xam ne ñoom lay àndal xam nañu ko moto pompe yi njëkk yi njëkk a tàkk su fekkee bosam njëkk fa tamit kékk fa njëkk bariwul donc at mu jot boole ko carburant bu bëri boole kook ay ay ay ay ay financement yoo xam ne nii ay ay prime de motivation lay doon donc kon ñoo ngi koy tàllal loxo di ko di ko di ko gën a ñaanal rek lépp loo xam ne mën na ko ren bu déwénee mu mën lu ko ëpp waaw. asalaamaaleykum wa rahmatullahi ci kàddu gi Maxtaar Seck jàngkatu xasaayid kër Cheikh Mouhamadou taxaa ñu ngi nuyu mbooleem ñu fi teew ñëpp di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal suñ boroom yàggal ko fi di siyaar bu baax. ci ëtt bi ñu nekk muy ëttub sëriñ Saalihu Njaay di doomu daara moom ko xam jëfam xam ne lu mu nekk lu nekk boole ci doomi daara yi ak jànkatu xasida yi ngir njaboote gi mu leen njaboote Doro Gueye nag xamuñu ko waaye miin nañ ko ci turu sëriñ Saalihu Njaay ndax liggéey bennuy liggéey kër sëñ taxa muy jàng xasida yi daf ñuy wax nañu ñu na ngeen ci fasaale Doro Gueye ndax bu sañoon benn askan du nekk ci coono rawatina waa Touba. kon nag bu jëfee jëf ju toll nii jaarale ko ci jëmmam mu ne moom lum lu mu nekk doomi daar yi dinañ ci bokk ak jànkati xasida yi bii mu jokkoog sëñ Cheikh Kébé wax ko ko moo waral sunu teewaay ñu ngi ñaanal sëriñ Saliou Ndiaye di ñaanal doora suñu borom gën koo dooleel jàppale ko ba mboolem lim mébét ci Sénégal lépp mu yeggale ko di sant sëriñ Saliou Ndiaye bu baax di ko ñaanal suñu borom gën koo taxawu ndax moom lépp loo xam ne si ne ñëw na ci Touba lépp lu am ci réew mi su sañoon Touba ci Touba ci ëppale yéene jooju mu am nag yàlla na ko suñ suñ borom yeggale ci darajey sëriñ Saalihu Mbàkke ñu ngi sant ñëpp asalaamaaleykum waxan moo jëf-jëf ji itam ah koy sant noo koy gërëm surtout sëñ Saalihu Njaay mii ndax nit bu nekkee ci koñ te ki nga xam ne moo ne ci koñ mi nga xam ne fu sa loxo jotut loxoom jot na fa mu yóbbu fu sa kàddu koo koy jaar naa sant jaar naa ñaanal bin ñaan sant bi ñaanalee sëñ sëñ Muntaxa bi fi nekkal maam Serigne Touba di ñaanal Serigne omor mi nekkal fii waa Gédé di ñaanal Saliou Ndiaye mi ak waajuram wii fi nekk yal na yàlla guddal seeni fan te kii def jëf ji itam yal na ko yàlla nangul lii mu jëf ci nun ndax lii kat lu rëy la ndax ku yàlla jàpp nga lijjanti ba di ko dimbale mel na ni ah loolee day yaa ngi koy jàppale ci la mënut waaye képp kuy def loolu ku ne yàlla na yàlla gën a jàppale yàlla gën laa dooleel ka kàddoom ka ka loxoom jot sa loxo jotu fa ka def loole itam lu mu bëgg lu ne yàlla na ko yàlla defal yàlla musal la ci cat musal la ci ndog te yàlla may la jàmm may la gudd gën ak wér wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñu ngi nuyu mbooloo mi nga xam ni teew nañ fi yëpp nag yaakaar naa lii moom du c'est première fois ndax miin nañ lu mel nii ci sama jëmm ji ak ñi taxaw nii ci sama wet ñi ngi gërëm nag ñi fi teew ñëpp di leen sant aussi di leen bàyyi xel ci coono yi nga xam ne def nañ ko ak déplacement bi nga xam ni def nañ ko pour ñëw fii jël si ceeb bi ndax bu ñu amoon la ñu gënal kenn ku ci nekk dañuy def déplacement ñëw ba sa kër ñu andi la ko di gërëm nag aussi euh, PDC Dora gay nekk coordonnateur général bu plateforme xippi xool ambassadeur la paix euh, muy nit ku baax lii nag jëf la joo xam ne yàgg na ko jëf miin nañ ko ci moom ci turam te bàyyiwul këru diine yëpp nag fépp lay fépp la koy def muy Ndiassane di Tivaouane di Touba ba ci jàngu bi aussi gis nañ semaine passée la nga xam ne def na ko fa muy jëf ju baax te période bii ñu toll nag ci réew mi fii ñu toll situation bi fi mu toll jàpp nañ ni population bi dañuy soxla ku mel ni PDC Dora Gueye ndax nit social la nitu valeur la loolu nag ñu ngi ko ci sant aussi di ko ci gërëm di sant aussi ñi nga xam ni mooy Màkk Thiam ñi nga xam ne ñoo yore wàllu inondation yi Touba ñu gis seen liggéey aussi moom it ni mu rafete te it xam nañ leen ci ràññee nañ leen ci ndax depuis bi nawet bi démarré ba léegi ñoom ñi ngi sol seen dàll ñun ñëpp ñu ngi leen di suivre ci réseaux sociaux yi muy ay jàmbaar di xaritu PDC a Gueye ñu yàgg ak moom comme ni mu ko waxee léegi rek te it ay jàmbaar lañ te it dëkk bi reconnaître nañ leen kon war nañ leen a teg loxo autorités nga xam ne dañu nekk ci département bi ba du ñu soxla lenn loo xam ne dafay jóge ci biti pour ñëw ci ñoom yaakaar naa loolu yomb na ñi xam ne ñooy ay autorité nekk ci dëkk bi ma leen di lancé appel bu mel noonu ni doore di def di leen bàyyi ñu bañ soxla dara loo xam ne dañ koy jéggaani parce que population bi lañ fi nekkal kon ñoom li ngi leen gërëm baax leen sant vraiment seen jëf rafet na leneen li ci tegu nag aussi euh, li may wax ci doora dafay nekk nit boo xam ni lu mel nii Euh, ci cadre situation sociale bi nga xam ni bu ñu fa tollee parfois nit daf may woo am lu mu soxla moo xam social la moo xam lu mu mën a doon jàpp na rek bu mu ko yëgee rek door daf ko war a yëg am naa ci cas yu mel noonu semaine passée am naa ko hôpital Seexul Xaddim ko xam ne maa dem opération bi lépp maa ko jël en charge parce que daf ma woo ci turu Doora te Doora nit ko mel noonu ma ne ko loolu danaa taxaw la ca war a dem lépp dinaa ko def te yàlla mi ñu xam ne ni kilifa gi yëgu ko parce que dañ ko xam ci loolu te nit ñi dañoo am ci moom yaakaar kon nag yaakaar bi nga xam ne moom la population bi am ci moom ñu ngi ñaan yàlla yaakaar boobu bañ a tas euh, muy nit koo xam ne fu màggalu Tuubaa jubsee xelam dafay dem ci jëf ji muy koor muy tabaski muy yeneen événement yi fu ñu ci jubee rek dana ne sëñ Saliou lan mooy baax ak la nga xam ne bu ñu ko defee jàpp nañ ni waa Touba vraiment seen xol dana sedd muy ñi nga xam ne dañu néew doole muy imaam yi muy jàngalekatu alxuraan yi ñu taxawu leen taxaw bu mucc ci ayib te wax dëgg yàlla li sedd na xol ndax yaakaar na sant sëñ Touba ci lii lay démarré bu fekkee moom daf ne nañ ko sant la borom subhanahu wa taala jàpp naa nga jàppale waa dëkk bi comme ni ma déggee imaam sëñ Abdou Rafa mu waxe ko semaine passée nañu jàppale waa dëkk bi nañu jàppale ñi néew doole loolu la sëñ bi bëgg kon door ci ñooñu la jiitu amu fi kenn ku fi def jëf ju raw jëf ji nga xam ne moom la door a jëf baa boog ñu gisuñu loolu jëfam ji daal jàpp nañu moom la yàlla gërëm moom la sëñ bi nangu parce que jëfam lañ gis moo jaar suñu loxo ñu jox ko ñi nga xam ne ñoo new doole kon nag vraiment doore ñu ngi koy gërëm bu baax di ko ñaanal yàlla gën ko taxaw borom bis bi gën ko fayal boppam ba yéene ji mu am aussi ci liggéeyal ko population bi yàlla na ko yàlla defal loolu te plateforme bi nag aussi dafa yaatu mu ngi ci 14 régions yi Sénégal yëpp te it nii mu ko defee fii noonu la koy defee fépp ci Sénégal te it lii ñëw na muy ceeb bi te am na leneen loo xam ne mi ngi ñëw lu jëm ci wàllu li nga xam ne eh, ndawal loo xam ne am ñoo xam ne yittewoo nañ ko ku mel ni ñii soxla nañ ko danañ leen ci taxaw ak langa nga xam ne moo cay dem ba ñoom ñëpp kenn ku ci ne mën cee jot mën a màggal màggal gu mucc ci ayib sa xol sedd say gan mën a tegu ci macha allah daal lépp mën a tegu ci yoon. kon daal ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp merci beaucoup jërëjëf euh, si tonne la. leen dafay dem ci waa batin euh, bassin de rétention bi leen dañ dem ci imam yi leen dañ jëm ci les a vivant avec handicapé dañ leen ko tas ñoom ñëpp danañ ci jot waaw sëñ Saliou moom soxlu ci len luy dugg këram waaw lépp day gën dem ci kàttanu yàlla su ma yoroon lu ma ciy doole sax ma mu dem. Euh, moom moom à personne ku ko xam ku ne xam ni nit social la avant ñuy jot ci moom dañoo dégg ci moom loolu moo tax ñu daw wuti ko muy soppeeku sëñ Saliou nag bëgg ko lool parce que tamit loolu li ñu gën a boole ak moom la taalibi sëñ Saliou lu baax lay def te it na ci loolu. depuis bi ñu xamante ba ba léegi ci année yëpp wax dëgg yàlla lu mel ni mi ngi ko def heure moom mu def ko. amul lenn lu ci xalaat lépp lu baax rek lu jëm ci doomu aadama rek doora bu ko yëgee dana ko def